allo salaamaaleykum waaye ñu ngi nuyoo di joxe suñu xalaat ci série bi parce que man moom li ma xalaat mooy Marème waru woon topp Cheikh parce que xëy na bu évité woon ñëw bi yooyu yëpp mën naa ñàkk bu dee tam ci côté tam li def ci kër gi tam bi yoon parce que am fa woon pour dem man loolu boo nekkoon sama opinion. Euh, asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi ziar maa ngi ziar maa ngi sant de ziar. ah vraiment vraiment vraiment série bi neex na Marème ak Cheikh Diagne mi ah mm, neex na neex na vraiment neex na doomu aadama yi neex na waa Sénégal neex na waa bitim réew waaw ñoom liñ ñuy defal nii dañoo ña dañ leen a war a ñaanal dañ leen war a ñaanal de dañ leen a war a ñaanal parce que moment bii ñëpp a mii muy Sénégal muy bitim réew yaa ngi dégg sëfaan wa def nañ ko. wax nañ ko rey nañ ko suul nañ ko yóbbu nañ ko dina ñëwati dootul ñëwati ñoom ñu ñëw rek uniquement pour bégal ñu vraiment Marème Dial moom ah yow moom ah yow moom ah yow yow moom yow moom nit ñi dañoo waroon xam sa numéro rek di la bégal saa su ne saa su ne dañ la di waroon di bégal vraiment vraiment kontaan nañ ci yow bul faale bul toppatoo defoo dara lu xaram Sénégal ak feneen ak feneen ñi ngi def leneen lu piiru loolu man pour man yenn yi laa ko teg man yenn yi man jalousie jalousie laa ko teg ak bëgg a wax ak bëgg a wax daal mais fii lan moo fi ne fii dara lu ñaaw neew fii fii ay bëggal rek moo fi am ay jàmm rek moo fi am ay salaam rek moo fi am da ngay seetaan film bi di bëgg di bëgg bu film bu jeex même boo amoon problème ak sa jëkkër ah lu mu tuuti tuuti dina am exemple buñ la jox ah avant film di jeex nga am envie jubóog sa jëkkër waaye nan leen ñu may jàmm si Marème Dial mi waaye Marème Dial defu fi waxu fi jàmm rek lay def Momar Cheikh Diane mi yal na leen yàlla jëmmale sa kanam yàlla may leen gudd fan wér gu yaram li ngeen di def kontaan nañ ci man man pour man sax man ay jëlikaak ay keneen ak keneen amul ci film bi pour man Marème ak Cheikh Diagne rek ñoo am ci film bi vraiment neex na kontaan nañu Marème fi nga ko jàpp foofu la. fi ko jàpp foofu la bul tiit bul jaaxle bul yox foofu la dégg nga ah? yaa ngi ci biir filing paaj nga da nga bëri filing. asalaamaaleykum wa rahmatulah waa série Maîtresse maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bu baax a baax di wax ne ñun vraiment kontaan nañu ci série bi bu baax a baax a baax amuñ dara luñ ciy critique wala dara dañ doon dugguñ ci YouTube bi rek gis seen numéro ñu enregistré ko. pour man di dugg ci kii bi waxtaan bi wax dëgg yàlla kontaan nañ torop ci waa maîtresse seen film bi macha allah neex la torop torop torop torop sax ñun daal leen daal lañu bëgg mooy France bi daal suñu mëneen di ko wàññi tuuti daal di lañu gën a neex wax dëgg yàlla mais nag kontaan nañ torop maaleykum waa Dash Chef si maa leen di bu baax a baax di bu baax a baax di leen baal laax si weeru ramadaan wu tedd di leen jox seen wàccukaay bu baax mais di rafetlu seen émission Soog bi wax dëgg macha allah yéen ustaas yi ni di jàngale parce que neex na ma daal vraiment neex na ma trop neex na ma trop waaye dafa am lu wax loo xam ne si mais déggoon naa ko si mais dama loo laaj ba xam yéen mag ngi ngeen di jàng wala xale yi ngeen jànga ndax kaas bi dafa bëri trop te xale yi yaakaar naa ne borom kër yi. mais parce que yaakaar naa sama xel daal dama yaakaar ne borom kër yi ngir jàngal yi nga xam ne ni ñuy doxalee seen aawa yi ak ni ñuy doxalee seen ñaareel yi ak ñi nga xam ne ñun suñ moroomi jigéen ñi tamit li ñu war a yaatalee seen moroomi jigéen waaw ndax wujje bi mais wujje diisut sax mais parce que ni koy doxalee rek la waaye vraiment daal kontaan naa si trop kontaan naa si trop parce daal mais. li nga koy doxalee wax dëgg mais neex na ma trop neex na ma trop wax dëgg yàlla li ngeen di jàngale mais yàlla na seen liggéey bi ñaan yàlla rek ngeen jàppale ko si kanam neex na ma trop wax dëgg émission bi neex na trop neex na waaye rek tamit de mais parce que yaayam day yàq moroom day yàq moroom bi yaayam bi daal ah, parce que yaayam ni mu doxalee nit ki kenn ku nekk nga bëgg daal mais parce que lan la see war a bàyyi nga sëy ak moom nga dox dox bi waaw. ndax yaayam mais parce que daal dara waar daal dara waar daal waaye li na ma trop neex na ma trop waaw xale yi mais parce que xale yi moom léegi nekkutuñ xale xale yi comme mag yi rek la waaye damaa jàpp na rek mag ñi la ñuy mag ñi ngeen di jàngal waa jàngulee xale yi ndax kenn ko li ngay doxalee sa néegu sëy ak ñi nga xam ne borom kër la li ñuy doxalee seen seen kër yi loolu la parce que loolu laa yaakaar moom ngi di jàngale daal vraiment daal neex na maa ngi jékk lu baax a baax <laughs> wax dëgg neex na ma trop waaw fan yi damaa découvrir léegi moo tax waaye parce que neex na ma trop dëgg yàlla. asalaamaaleykum mbokk internet lu xew TV maa leen di nuyu bu baax di leen ziar bu baax a baax euh, di ñëw ci seen série maîtresse bi daw démb maa ngi si kontaan bu baax série bi neex na neex na trop amul benn foot amul foot ndax. Euh, sere bi luñ fi joué rek dafa am Sénégal ñoo war a bàyyi li ñu li ñu nekkee waa bu nit nekkee ci liggéeyam di def ñu topp ndax dafa am ñoo xam ne day day yàq dañuy dañuy yàq ñii di defar ndax euh, Sénégal dangay xool kër goo dugg tey novelas mu nga fa xale yi ñuy naan série bi day yàq xale yi dafa fekk xale yi yàqu ba pare rek ndax kër goo dugg xale yi ñu seetaan novelas xale yi xamuñu sax xamuñu sax télé sénégalais yi ndax novelas la ñuy seetaan di seetaan série yu bon yi film yu bon yi mais seen yaay yi ak seen papa yi dañ koy gis mais dañ ne changé leen télé bi ndax dañuy bàyyi ñuy seetaan novelas te li ñuy def novelas moo gën a piir li ñuy def si série bi série bi defuñu si dara loo xam ne dafa aay série bi neex na neex na man moom Marème moom dama ko faa Marème moom daf maa neex daf maa neex waa ci kaw rek xool dafa lu neex géel mu neex ndax li ngay géel neex na sénégalais yi neex na ñëpp Sénégal moom il faut moom mu am ñoo xam ne ñi dañuy yàq ñii di defar mais xam nga lan la ñi nga xam ne dañuy defar ñoom ngay topp def yow daal defal lu la choisir li nga choisir def ko mais bul xool li ñi ñi di wax bu ko xool ndax ñii ñi bëgg nañ leen ba pare dañuy seetaan série bi série bi ku ko seetaanul Sénégal amul ñëpp a koy seetaan bu neexul woon kenn du ko seetaan booy commentaire naan liñ siy def jaaduwul du yoon du dafa neex moo tax ñi di ko seetaan maram yow dama laa fan tamit dafa am jigéen ñoo xam ne tey wala sa jëkkër bu ayee ci sa beneen soxna si duñu mun a nelaw dina yàqal di la kar-kar yi ni lu mu lu mu lu mu nekkee foofu foog ñu xam ko dafa am ci ay jigéenam te loolu dafa bëri am na ñoo xam ne mënuñoo supporter wujju mënuñu koo supporter wala nangu ko nangu ñàkk pexe duñu am jàmm tey bu ñu demee ba ñu naan ñaari jabar ngi am jàmm ci biir kër gi waaye ñaari jabar yoo xam ne duñu laale kee bu awee ne kee aw ne waaw mooy loolu macha allah yéen tamit li ngeen seen liggéey rafet na tamit sëri bi am na solo lool ci kaw na lépp nice na lépp rafetaal nay am loo xam ni langage yi nay nekk langage boo xam ni mag bu ko déglu dina ci jàng xale bu ko déglu dina koy dina ci jàng daal ndax lu am solo la ñuy daal waaye na langage yi gën a rafetaat daal. asalaamaaleykum maa ngi leen di leen ñaanal jàmm lu xew TV waaw man dama ñëw indi sama commentaire comme cadre jigéen am na ñoo xam ne tey dañ naan duñu bokk ak seen wujju kër waaye man bu doon may laal la damay bokk ak moom kër. jàmm gi sax foofu lay gën a amee waaye am na ñoo xam ne dañ naan tey boo bokkee ñoom kër ñii dinañ la asib ñii dinañ la def loo xam ne yow doo ko fooge moo tax ñii bari bañ wujj ñu bañ bañ wujj da ngay gis koo xam takk ñaare muy bañantu sa kaw wala muy am nenn noo xam ne moo koy doxalee loo xam ne wala mu indi jukko yoo xam ni newul woon ci kër gi daal loolu yëpp da nga koy sóoraale xëy na mareem tamit jabar la moom jabar la na leen boole teg leen ci biir kër gi benn kàddu di ci woy ku jaarul yoon mu teg la ci yoon waane tey boo bëggee ay ay loo fee ñu sa doom feebar na doo mën a ñàkk bañ a dem waaw góor daal boo demee ba jam ba takk ñaari jabar daal jëla say matuwaay bu la kenn yilif yaa yilif yaa leen yilif laay léegi nag moom mare moom nabu dara kooku moom dafa manqaa la xaw ma lu laala di tiges xaw ma manqaa waaye laalaak fi kii mare ma ko gën a niroo manka moom waay mais bàyyi ziar ñëpp waa épisode bi moom neex na démb trop trop trop neex na trop laal la moom toj na fi marem woon ko nag moom maa la gën a yées asalaamualeykum wa ah, la moom laal moom ah laala moom lu mu def démb moom ëpp na jël ayu jàmbur dootu ko defati ndax xam naa mari moom namul dara dara dara dem na. nuyu naa leen ziar leen mareem moom kontaan naa ci mareem mareem wàcc na fii ba zéro noonu de ñaareel yi daal dañoo am fula man daal faa naa ñaareel yi mareem deful dara de li moom la dem jëli ji rek xam góor ñi dañu doy tamit. mi ngi ko woo maan ko fi ma war a nekk jeeg taajal na ma rek xam tamit du wax nit loolu moom comme noonu yow tamit mu metti la dara maanaam daal dem na jëli li mu moom bu ëllëgee su koy wax dina ko bàyyi xel bu baax a baax a baax lan moom dañ ñu aawo aawo kay moom war naa mën a dégg lu bari aawo kay su méttee na dégg mu neex nga dégg ko ni mu woon say jaañ su ko continué woon rek non beneen affaire lay doon. waaye may la wujj rek nga commencé nga changé nekk beneen nit eh, te li am am na ba pare mënoo koo dindi na jéema rek nag boot mareem mareem da ku ko boot mu boot ku ko boot mu boot boppam mareem rek yi mareem faanaa ko noonu la asalaamaaleykum wa rahmatulah waa TV maa ngi leen di nuyu di leen jaam bu baax a baax man de dama bëggoon wax sama xalaat série bii di daw maîtresse waa sama xalaat daal laa bëggoon a joxe kan moom Cheikh Ndiaye laa bëgg a moom ndax góor moom dafa war a am fulla am fayda si boppam boo demee ba nga xam ne am nga fulay takk ñaari jabar nga am fulay boo ko takkee nga boole leen kër man d'accord ma ak góor ñi nga xam ne dañuy takk ñaari jabar ba kenn ku dañu utal la kër loolu ci boppam dañ ko war di waxtaanee ca dibi ba wax dëgg yàlla góor moom boo amee fulay takk ñaari jabar na leen boole ci génn kër wane fa fulaam ju mat sëkk ko defee kenn ku ne xam fa yam sa morom bu ñu mënta juboo ci biir kër gee kenn ku ne xam sa bopp bu kenn ku ne di daw ak tooñ ci sa morom jàpp naa ne histoire du mën mais tamit dañoo war a yaram góor ñi tamit ndax bu fekkente ne da nga ne bëgg nga góor ne bu la takkee du la yóbbu ci këram daf lay jëlal mm. appartement boo xoolee la mi fay appartement mm. xaj na ci yow xaj na ci sa njaboot man daa d'accord ma jigéen ñi nga xam ne seen jëkkër yi dañ leen di takk ba pare ñu leen di wax pour ñu jël leen appartement loolu moom d'accord ma ko moom Cheikh Ndiaye nag moom naa am fulla ci lii bëgg a def na takk kee indi ko si biir kër kenn ku ne xam fi ngay yem sa morom man daal loolu laa jàpp li ngeen di def nag kontaan naa si trop rafetlu naa ko trop macha allah. nuyu naa leen yéen waa Lu Xew TV ah, série bi neex na neex na trop trop surtout épisode bi jàll. neex na trop man Marème moom vraiment daf maa neex Marème daf maa neex trop trop waxuma la dara mais Lalla moo war a tey wala régler Lalla ci boppam moom dafa war a xam ne wujje jarul lii ah wujje yow rek tax na yow lu ne nga koy def wujje jarul lii dëgg la sa jëkk sa doom feebar na waaye Marème bi ñëwee yëpp taat di ko laaj mën na koo tonte neneen mais juróon mu koy ñàkkee sax waaye bàyyi koog mareem laay doom neex na yaayam mareem rek ci xale saf laamiñ waaye kenn du seex moom itam aye waroon a mottali fee ay gi di ko dagg pour lan loolu mareem nag li mu def moom dama cee kontaan torop torop jigéen ñi noonu lañu ñu war a bàyyi aawa yi sax laay wax loolu loolu lañ war a bàyyi ñoom seen jëkkër duñ dem seeti leen ñu ñëw takk leen teg leen ci kër gi ñu lànk ne du duñ takkaat keneen loolu mooy lan te lislaam may leen pour ñu takk kaat ah Marème da en tout moom ma kontaan ci moom bég naa ci moom nii la waaw ah, kay mu bañ koo wàcceeg dara na laala nag na rek la nag te tey te xam ne wujj ci ru yenn yi waaw bu ñu kenn sonal waay salaamaaleykum yéen waa lu xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen Euh, maa ngi jégglu nag ndax dafa mel ne commentaire bi xaw naa yeex maa ngi doon seetaan vidéo bi wante du tee ma sama xalaat euh, di leen xamal ne nag série bi moom neex na trop trop trop trop macha allah neex na trop neex na wante li ma ci wax daal mooy euh, lala na fàttaliku ne ñun ay jullit lañ te pouvoir boobu yàlla moo ko jox góor ñi ci suñu kaw kon dañ ko war a nangu ndax ay jullit lañu te ana lalla bi nga xamante ne moom laa xamoon ci mokku pooj bi nga xam ne moom laa xamoon si jonge ana lalla bi nga xam ne moom laa xamoon ci man jëkkëram ci bépp boor lalla bi nga xam ne moo mën a sëy tudde jëkkëram àjjana dem tey ba mu bëgg a soppaliku sawara ci ay loxoom la moom laa bëgg mu seetaat boppam bu baax a baax ana lalla mu diiñ bi ma xamoon seex tamit na dellu ginnaaw tuuti moom tamit xam ne moom kilifa la ndax lii lépp tey mën naa ne su amee ba egsi fii moom la seex kër la am gu baax jëndal jabaram oto bu baax bu rafet mu di ko dawal ubbil ko place bu baax macha allah kon kooku lan lay daw ci takk ñaari jabar ba tax muy nëbbatu di làqatu di doxaan ba mu egsi fii tey kon mun naa ne moom na dellu ginnaaw tuuti xam ne moom kilifa la mu xam ne nag dafa war a jël ay responsabilité am yor ñaari jabar kër gi tamit xatul xol yi mooy xat kër du xat xol mooy xat kër gi xoola ni mu tolloo macha allah dara manqué wul ay jéeg war nañ fee man a daagu kenn ku nekk di dox ci sa côté te kenn du déranger kenn kon nañu nañ suukar soow mi duggee ko jaba suukar soow mi ñëpp bokk naan moo gën ñu koy kaani kenn ku nekk rek xam ne danga nga see am sa wàll te góor moom du leen ni kenn lépp ñëpp la lu ne ku ne xaj na ci kooku moom loolu laa ñooñu moom loolu laa leen di wax rakki tamit wax dëgg yàlla euh, couple boobu neexoon na torop torop torop torop rakki tamit moo warul woon fen Moustapha parce moom xamul woon fan la ko jëmee ki ko invité gis nga fi mu ko jëmee gis nga léegi Moustapha ñëw na ba tiim ko te daf koo fen kon dèjà moom mun naa dem ba ñàkk ci moom confiance te fekk na dara nekkul ci moom li ko taxoon a jóg la taam ko koy mu ko koy expliqué tafaa moom meer na ba dem moom tamit ni gis nga am na problème kon nit ay nit bu ñu àndee nañuy waxante dëgg te yàlla tax ndax bu ko waxoon li xew kon mun naa am du demee nii jalika nag moom ku ma neex la moom daf ma sax neex ba ba numéro bi bi ma ko gisee joxe ko rek dama ko daal di jël bind si turu Jalika xaw ma woon ne numéro lu xew TV la mais moom tamit wax dëgg yàlla macha allah neex na ma trop mais na def attention ndax góor ñëpp seen bopp kaw la jëm seeni i tànk jëm suuf bala moo duggati ci dara de di joxeeti xolam na ko seetaat bu baax bala moo dajeeti ak ku mel ne Biram asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw maa ngi leen donc diggante Racky ak Moustapha. waaw diggante ba moom ñëpp ko rafetlu quoi ñu ci bëri bokk ah ñu ci bëri laay wax quoi parce que am na ñoo xam ne avec le pouvoir de l'argent là jàpp nañ ne rek dafa ñàkk fay rek moo tax muy topp koo xamante ne si donc yorul dara am koo xamante ne si vraiment mënal na ko lu ne muy baa bi daw quoi am na ñu gëm loolu quoi mais ku nekk vraiment mais man jàpp naa ni gën dëgg-dëgg mooy li nga xam ne si noonu rek comporté woon au début xëy na nag dem na ba ci ginnaaw avec pouvoir de l'argent là ak yaayam aussi sonal ko donc loolu sax du yaayam quoi waaw ah, rakee bëggoon dem rek rakee buggoon dem bien vrai que yaayam forcé na ko mais moom wax yaayam yooyu vraiment gëmm ko quoi bu ko neexoon du dem daal wax dëgg yàlla waaw mais comme xaalis jot na dugg xaw a bëri ainsi de suite avec le pouvoir de l' argent donc peut-être rek mënatul woon tenir quoi mënatul woon tenir quoi ak pression bi nga xam ne si moo ne ci moom kër gi mu yor dépense yi location bi donc facture courant ndox genre quoi. donc xaalis vraiment diggale ko noonu aussi donc loo ñaan gor day gor dara quoi il faut mu gore dëgg dëgg dëgg vraiment pour mën a donc tourner le dos au mën a wan ginnaaw paa bi quoi waaw gisoo Moustapha aussi mi ngi commencé di xeex ah, parce que yu ñëwee bu gis ko gisoo yu dawaatee di woy noonu dafa lëng gel bi ah <laughs> su gisoon rek yi noonu il n'oserait pas maanaam du xam nga du am fit du du ñëwee lëngeel bi quoi mais comme fekk na ko paa rek donc mu dem lëngeel bi di woy ay woyam quoi comme si rien n'était mel dara xewul <laughs> xeex na fi quoi <laughs> c'est ça quoi waaye mais dara affaire bi neex na macha allah jaajëf. genre les internautes waaw tout droit hein maanaam bi jiitu Sénégal xamuñu ki tooñ fayeeku lañ xam donc Cheikh aaye na ci Marème demu fa Marème woo na ko Cheikh donc wax na ko tàng. ah ni ko maa ngi ko fi ma toog ni maa ngi fi reer genre xam nga couple tamit nekkul foo bëgg a reere rek reere fa quoi waaw ay la ñu wax quoi boo aye fii donc lépp fa nga ko def boo ayee fenn aussi lépp fa nga koy defee donc donc jóg na déplacé wu ñu li mu def war ko na def te pourtant maanaam du mobile maanaam maanaam li tax Marème def loolu wax leen ci loolu ba pare yéen kay teg leen Cheikh Toor bi nañ teg Cheikh Toor bi ba pare waaw kay bu Cheikh defoon loolu. Ah, dem ca Marème kon Marème du déplacé wu n'est-ce pas moo tax ma ne Sénégal xamuñu ko tooñ ko fayeeku lañ xam waaw ci Cheikh moom daal moom moom la ñu teg toor bi <coughs> loolu benn bi quoi. donc affaire bi aussi loolu ñoon ko wax feeñ mu nekk nii góor ñu ci bëri dañuy faral Cheikh jigéen ñi aaway faral aaway ñaareel faral ñaareel yi daasaka donc ci biir waxtaan objectivité du mën am foofu maanaam booy wax say wax rek da ngay analyse da ngay objectif waaw bu dee jigéen aussi nga objectif ko wax li nga war wax wax li nga xamante ne foofu la dëgg féete. mais boo ci wute ay par parloo naan kii aaw donc moom rek la ñu war a bàyyi appartement yi loolu fa lañ ko bind loolu ci ban texte la nekk yow góor nga kay am nga sa kër wala sa benn kër nga am wala vraiment les moyens ne suivent maanaam amoo moyens méttee noonu quoi yu bëree noonu quoi mais jabar kay fii si saw ay àdduna bee changé rek mais suñu papa yeeg suñu yaay donc daanaka nga naan gis ay ñeenti soxna ci biir kër gi ah c'est ça quoi loolu moom. bien vrai que àdduna bi changé na ku ci nekk xam nga loolu choix la nag quoi choix la man ñi nga xam ne maanaam dañ koy def condamné wu ma leen ñi nga xam ne dañ am fii jabar am fële jabar condamné wu leen ku nekk sa kër amul problème condamné wu ma leen très sincèrement donc ñi nga xam ne aussi tamit dañuy am seen jabar ñu ne ci benn kër bi ñoo leen bul leen condamné ku ci nekk sa choix ak sa position situation financière maanaam sa sa sa sa amam fi mu toll loolu maanaam maanaam loolu da ci joué quoi mais buñ tëb te bëgg a condamné ma rek Hmm, jàpp nii donc dañ ko waroon wutal këram war a war a condamné Cheikh quoi laa bëgg a wax jàpp nañ ko war a wutal këram wala war a condamné Lalla donc jàpp ni Marème aussi xam nga mi ngi dans toutes ces raisons là non non non moom vraiment pourtant ñoom bi ñu dajee ci kii assurance bi dañ fa wax wax yi wax rafet ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk vraiment essayer nga mettre les points sur les i de l'autre jéem a corriger ki ci des quoi mais wax jooju gëmuñu ko nag man bu xool man am na nu mu demee man laal laa kii nu mu tuddati Marème laa gën a gëm sax quoi Marème moo gën a kii quoi moo gën a kii ko moo gën a juste quoi moo gën a parce que laal nit kese la moo tax mënut a supporter xam nga mënut a supporter mariage bi loolu teguwul fenn il faut savoir supporter quand même mooy àdduna ah. waaw salaamaaleykum na sëriñ su na mu marié ñu ngi lay nuyu wala wala ku nekk sa tur ak sa sant waa ñun allons voilà xool nañu épisode 34 bi xaw ma voilà maîtresse non mariée xool nañu ko vraiment vraiment alors tey moom macha allah waa démb moom alors wala épisode bi moom neexoon na macha allah macha allah waa Maria euh, kii nag xaw ma nu ma tudd woon mooy euh, kii jëkk euh, ñaareelu seex bi wala ñaareelu seex bi moom alors voilà. vraiment affaire bi moom alors voilà léegi moom mun naa mu ngi sës mu ngi sës bu baax nag vraiment vraiment mais bon yàlla yàlla rek xam quoi en fait waa vraiment vraiment tafa nag ak kii euh, nu mu tudd rakki waa ñu jéem a xool rek waxtaanu quoi tafa nag mu comprend mu comprendre rakki nag. wala rakk yi nag du coobareem parce que wala yaayam bi moo wala yaay ji moo koy poussé nii rek et voilà pa boobu moom tamit nag alors mu xam nag ne wala vraiment mu war na ko xam voilà euh, euh, moom mënul ànd ak rakk yi quoi parce que rakk yi moom wala même buñ ko gisee woon sax rakk yi ko vraiment ala kulli al rakk yi bëggu ko wala nu bàyyi di def ay yenn yi xam ne vraiment vraiment paa yi wala genre paa yi ñoo yàqoon Sénégal quoi. voilà genre pays ñoo yàqoon Sénégal liñ topp seen voilà seen ginnaawu doom yi rek allo voilà def lu leen kii rek allo voilà loolu baaxul nag vraiment vraiment waaw ñu ngi lay nuyu yéen ñëpp ah. maîtresse non mariée nag alors moom ñun de moom duñu kii duñu romb benn yoon duñ koy seetaana bu baax a baax a baax wooy am na importance vraiment vraiment vraiment man saraxule la voilà nuyu naa leen yéen ñëpp waaw maa ngi nuyu alors tante Racky nag wooy mooy Tafa Ba. waaye Tafa ñun de kontaan nañu nag sa mbokk saraxu lay la quoi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la bëggee quoi bëggee. salaamaaleykum dama bëgg a bokk groupe whatsapp série un homme marié maîtresse un homme marié dama bëgg parce série bi man kontaan naa franchement bul kenn dindi Sénégal continuer rek ci kanam rek ñii di wax ay yooyu ay kii la quoi waxee kasaw kasaw la quoi yooyu moom amul benn importance continué rek Sénégal jëm kanam lii mooy civilisation mais séeréer yi moom ki ma ki ma gën a neexul séeréer mooy Mariam Mariam moom bu bu nekkul séeréer moom du dem par que yàlla Mariam fu nga jàpp foofu laa dem bu ko bàyyi de ok merci. salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu jaar baax. waaye da wax ci filmu démb bi série démb bi wax dëgg fa yàlla moom neex na torop neex na torop mais mareem daal moom wax dëgg neex yàlla dafa ëppal mareem dafa ëppal parce que moom waru ñëw kër jàmbur waru fekk si kii kër jàmbur parce que laal la moom daw na ba sonn laal la moom lu mu mën rek moo koy def lu mu mën rek moo ngi koy def mu ngi daw lu nekk daw na ba sonn tamit laal la dem bi muy woo Cheikh euh, doomam nekk na hôpital te tamit mënu ko woon bañ a ñàkk woo faaw moom faaw mu woo Cheikh Cheikh ñëw doomam mën a faju mënu ko woon bañ a ñàkk woo léegi bi mu ko woowee Marème tamit waru woon décrocher téléphone bi parce que xam na ni laala bu wootewee heure boobu rek am na lu tax ak dem bi muy ñëw hôpital tamit moom su bëggoon jàmm tamit du ñëw bëggul jàmm loolu moo taxoon mu topp Cheikh ci hôpital bi mais jëru woon sax muy dem jëru woon muy dem Marème moom dafay tooñ parce que moom Marème bu bëggoon jàmm rek jàmm day am bu bëggoon jàmm jàmm dina am parce que Lalla tamit mu ngi doon ut jàmm mais Marème daal ni ma ko gisee nii daal moom xam naa ne utul jàmm moom ni ko gisee nii moom xam naa ne utul jàmm parce que bii bii bi Lalla wootewee bi mu ko bi mu décroché téléphone bi di mu ko tontu tamit du yoon di mu ko tontu du yoon. wax dëgg yàlla mareem utul jàmm kër jàmbu tamit utu fa daara bu paase wee ma dem ci Moustapha ak Racky mais Moustapha tamit war na mën a déglu Racky de war na ko mën a déglu ndax réeroo amul ñàkk waxtaan rek moo am war na ko mën a déglu déglu ko bu baax ba xam moom lan la lan lan la affaire bi demee daal parce que bu ko wul tamit du xam réeroo daal mooy ñàkk waxtaan rek ñàkk waxtaan mooy indi réeroo rek mais na ko déglu na ko déglu. neex na moom trop moom neex na trop macha allah neex na trop mais Marème daal day tooñ Marème daal ànduma ak moom moom day tooñ daal. salaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk turam ak santam si maîtresse si euh, kii lay wax Marème waaw parce que Marème yow amoo audace dem fekk lan la këram sa jëkkër lu mu la def daal toogal sa gër nga xaar ko. amoo audace dem fekk lan la këram parce que déjà yow tooñ nga cheikh lu mu la mënta wax lu mu la metti metti metti danga koy jéem muñ rek bu mu ñëw ngeen réglé ko yenn ñaar mais déjà dem na kër lan la fekk na fa ay gan léegi nit ñi dañuy xool lu muy réagir loolu moom mare man ànduma ci moom ànduma ci yaa ngi yàq turu ñaareel yi man moom dama ñaareel mais yaa ngi yàqu turu ñaareel yi lan la moom man kontaan naa ci moom parce que xam nga lan moo tax lan la doomam bee feebar am na droit woo parce que seex moo yor carnet bi am na droit wooko parce que doom bi doomu seex la du toog dem hôpital di xaar ba deux jours jot mu doog a woo seex lal la foofu moom man d'accord naa ci yow mais raki raki yokk Moustapha Moustapha warul topp sa jiko moom tamit góor la xam na sa jaar-jaar mënoon naa bàyyi ba affaire yi après ngeen jéem ko arranger mais yow tamit moom gis nga ko mu toog yow tamit nga dem réagir nga dem jàpp fambe ngeen di kottante ngeen di fecc xam nga Moustapha daal dafa ma niroo góor bu muy buy defante te jaru ko daal góor buy defante moom xam nga jaru ko defante si jigéen lañ ko xamee. mais daal seen série bi moom wax fa dëgg yàlla neex na torop torop trop daal neex na torop série yi di daw si kii yëpp tere yëpp man daal seen bos laa choisir seen bos bu ma ko seetaanoon si tele bi si bi laa koy dawal seetaan ko mais nekk leen si jàmm yàlla na leen yàlla jàppale ci li ngeen di joué yéen ñëpp. ak ñiy tourné film bi yàlla na leen yàlla jàppale lépp li ngeen ci def lu ne yàlla na leen ko yàlla jàppale merci beaucoup.